la delloo nuyoo di di di wax ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi euh, di di wax ne vraiment ñun on vraiment satisfait et puis sax yéen vous êtes arrivé à la bonne heure parce que dangeen ngeen ñëw heure bi nga xam ni dafa fekk juste ñuy waaja def suñu bilan et puis sax am nañ ci am na fekk na ñuy waaj a tëj suñu journée et puis tout en sachant que depuis depuis heures wala xaw ma depuis 7 heures ñoo ngi fi ak malade yi et yàlla def na tamit loo xam ne dañ ko yàgg di def chaque année et ren mooy dixième année wala fukkeelu année bi ñu koy def ci Médina fii et def ko rek yéene bi ci njëkk comme ni ñuy wax mooy ci jaamu yàlla la et puis ku ci nekk comme ni ñuy wax ci bisu gàmm ci li ngay yëngu ci nga mën a jaamu yàlla donc je pense que initiative bi looloo nekkoon looloo ko mbébétoon looloo nekkoon euh, li ko taxoon a jóg donc depuis dix ans yàlla mu ngi ñu ciy dimbale ñu ngi ciy jóg di daanu mais ñu ngi ciy sant yàlla bu baax et aussi je pense que bu dee dañu war côté maladie wala côté feebar yi nga xam ne ci suba ba léegi ñu ngi ciy jànkonteel euh, mun nañu jàpp ne euh, li ci ëpp li ci ëpp ay grippe la ak palu et puis surtout les cas de palu parce que tamit naa ràññee nañ ñu ne wala nemmeeku nañ ne kat euh, depuis ce matin nous avons eu peut-être trois ou quatre cas de palu grave yoo xam ne bon c'est des paludismes confirmés loolu dañ koy def dañu def benn analyse léegi mu wan ñu kat kii kat doomu jàngoro gi mu ngi ci moom et puis bu fekkee dañ ko def mu confirmer dafa am ay garab yu ñu lay defal ay perfusion boo leen ñëwoon xëy na ay 5 yooyu di ngeen fi fekk ay malade yoo xam ne dañ leen hospitalisé fii dafa leen ay ay perfusion et euh, li ci topp aussi mun nañu wax leneen ki mooy lu jëm ci grippe grippe bi aussi bëri na fi ndax ku ci ku ne ku ne grippe ne poussière te ku ne Médina ne Kaolack ne poussière alors je, comme je dis da fekk juste ñuy tëj donc maa ngi koy wax léegi sama sama naataangoo bi maa ngi koy wax léegi ne ko dañu war a dañu war a war a def suñu bilan mais mun nañ jàpp ne kat li ci nga xam ne tey jii nii mooy li ci ëpp importance te li nga xam ne jàpp nañ ni kat dafay dafay dafay dafay tax bakkanu doomu aadama mun na ci xaj. bu xoolee ci bi ñu commencé ci suba ba léegi li ñu fi gis ci ay cas li ci ëpp comme li may wax yi ci gën a graaw mooy les cas de paludisme grave mais li ci ëpp ci ay kaa aussi mooy li wax grippe te grippe bi aussi wala wala rhume. gars yi nga xam ne ñu bëri dañoo enrhumé ndax poussière bi donc ñooñu ñëpp ku ci ñëw di nga gis docteur bi nga war a gis mu xool la ni mu la war a xoolee ba pare jox la garab yi nga xam ne moom nga soxla te garab yooyu yëpp dañ la koy jox doo ci fay ñaar dërëm donc boo leen ñëwoon comme li ma la wax boo leen ñëwaatoon ci kanam tuuti rek boo leen teeloon ñëw rek di ngeen fi fekk fii yëpp ay garab la woon te garab yi fi nekkoon yëpp jot nañ koo joxe et comme je bu ñu jegewul lu mat téeméer 500 lu mat 500 malades war nañ ko weesu parce que liñ fi gis ci ay malades kenn xamul nu mu toll te chaque année on le fait depuis dix ans te comme li may wax année bu nekk rek chiffre bi dafay gën a yokk année bu nekk rek chiffre bi dafay gën a yokk mais ñu ngi ciy sant yàlla aussi ndax xam nañ ne kat ki tax ñu koy def mooy yonent yàlla muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam moom kat ay mbiram du ndaw te gëm nañ ne tamit. kuy gaay di may ba wax naan Cheikh Ahmadou Bamba amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la kon ana ana Muhammadu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam donc ay mbiram moom ci kanam rek la jëm te am nañ ci yaakaar gëm nañ ne année bii di ñëw it day gën a yokk te nit ñi dañuy gën a ñëw te dinañ gën a yokk tamit problème yi ñuy faj ndax fii kat mun naa leen wax lu leer naññ liñ fiy faj ci ay problème bëri na ndax ñu bëri na kenn kenn réerewul mbir ni ñii ñëw ci gàmm bi bëri nañ ñi fi ñëw kat nationalité bu nekk dafiy ñëw nigérian dafiy ñëw euh, malien dafiy ñëw béninois dafay ñëw léegi nii rek am na benn waay yoo xam ne beneen la jógee daf ne ma mu ngi soog a yegg si te kat mënul dem hôpital régional ndax amul moyen yu mu fa demee te moom dafa kat bëgg ñu xool ko te bëgg na buñ ko xoolee it ñu may ko ay garab te xam nga ne loolu bu doon hôpital kese moo fi nekk mënul nekk donc ñun dañ ciy jaamu yàlla te bu boobaa it faj nañ ci ay soxla yu bëri te di ci waxaat alhamdulilah beneen yoon aussi Mhm. d'accord alors donc je pense que comme li ma ko wax su ma delluwaatee ci may wax dinaa leneen leen cas yi fi ëpp ay kaawu paludisme la te paludisme du ma ne sax ñoo fi ëpp mais yi fi gën a graaw te paludisme yaakaar naa pour moytu ko chaque jour dinañ gis publicité ci tele bi pour ñu wax ñu lu ñu koy moytoo mooy déjà sànke sànke mooy li njëkk ci moytu paludisme bu dee jigéen bu ëmb la am na lu ñuy wax am na garab yu mu war a jël ren benn traitement préventif mais bu dee ëmbul bu dee góor la par exemple li ci njëkk mooy nga nelaw ci ay sànke et puis en même temps aussi fexe xam nga Kaolack tamit euh, ni ñuy wax ndox yu taay dafay bëri yenn garab yi aussi dañ fay bëri donc loolu tamit day favoriser moustique bi day tax alors alors exactement loolu tamit daf may permettre ma mën a wax beneen pàcc ci feebar yu ñu jot a gis parce que tamit am na feebaru biir yu ñu fi jot a gis te feebaru biir bi lu koy indi mooy li ñuy wax c'est la maladie des mains sales mooy ñi nga xam ne kat seeni loxo setul parce que buñ ne loxo bu setul ah ndoxoy setal lox te tamit tey jii bu dee ndox amul loolu tamit dañuy lancer beneen appel autorité yi parce que ndox dafa bokk ci wér-gu-yaramu doomu aadama ndax boo amul ndox doo raxasu xëy na jàngoro yi ngay jël ci boo nuyoo nit ki te gis nga gàmmu gi ni mu demee nit ñi dañuy bëri dañuy jaxasante seen biir donc bu dee ndox amul rek day exposé doomu aadama yi da leen exposé ci yenn yi nga xam ne mooy feebaru biir te feebaru biir bi tamit bokk na ci feebar yi ñu fi jot a gis tey bokk na tamit ci feebar yi ñu jot a jox gars yi ay garab di ci faj donc loolu tamit li ñuy wax beneen appel bu ñuy lancé autorités yi pour tamit ñu def le tout pour que en période de gàmmu ndox mën a am te ndox bu amee it na doon ndox bu doy parce que mun nañ na ndox am na fekk na it ndox boobu ca xoytul ay ay toq toxaan la te toq toxaan yooyu tamit day gën a favoriser yenn feebar yi li ñuy wax leen les jaare yi te loolu aussi c'est un problème et encore une fois euh, bu ñu jëlee feebaru biir yi ñu jël feebaru sëqët bi mooy mooy mooy mooy grippe bi ñu doon wax léegi ñu jël paludisme bi jàpp nañ ne yooyu feebarkat c'est des maladies infectieuses et c'est des maladies infectieuses li koy moytuloo c'est une prévention te prévention bi kat dafa am foo war a teg sa tànk dafa am foo war a doxee pour def ko chiffre boo xam ne si exactement loolu lañ fi jot a gis suba ba léegi waaye nag mën naa leen wax loo xam ne moom leer nañu leeru yàlla mais bi ñu commencé consulter ba léegi bu ñu ibboon registre yi léegi di ngeen ko gis li ñu fi gis ci ay malade soo moytuwul ba ëppul 500 it jege na ko si suba ba léegi te malade bu ñu ci gis dañ lay faj dañ lay xool nga gis docteur gis spécialiste mu xool la xool lu sa yaram laaj. wax léegi rek ma ne kon euh, bu ñu xoolee ci bi ñu commencé ci suba ba léegi li ñu fi gis ci ay cas li ci ëpp comme li may wax yi ci gën a graaw mooy les cas de paludisme grave mais li ci ëpp ci ay kaa aussi mooy li ñuy wax grippe te grippe bi aussi wala wala rhume gars yi nga xam ne ñu bëri dañoo enrhumé ndax poussière bi donc ñooñu ñëpp ku ci ñëw di nga gis docteur bi nga war a gis mu xool la ni mu la war a xoolee. ba pare jox la garab yi nga xam ne moom nga soxla te garab yooyu yëpp dañ la koy jox doo ci fay ñaar dërëm donc boo leen ñëwoon comme li ma la wax boo leen ñëwaatoon la woon te garab yi fi nekkoon yëpp jot nañ koo joxe et comme je dis bu ñu jegewul lu mat téeméer 500 lu mat 500 malades war nañ ko li ñu fi gis ci ay malades kenn xamul nu mu toll te chaque année on le fait depuis 10 may wax année bu nekk rek chiffre bi dafay gën a yokk année bu nekk rek chiffre bi dafay gën yokk mais ñu ngi ciy sant yàlla aussi ndax xam nañ ne kat ki tax ñu koy def mooy yonent yàlla muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam moom kat ay mbiram du ndaw te gëm nañ ne tamit kuy gaay di may wax naan Cheikh Ahmadou Bamba amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la kon ana ana muhammadu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam donc ay mbiram moom ci kanam rek la jëm te am nañ ci yaakaar gëm nañ ne année bii di ñëw it day gën a yokk te nit ñi dañuy gën a ñëw te dinañ gën a yokk tamit problème yi ñuy faj ndax fii kat mun naa leen wax lu leer naññ liñ fi faj ci ay problème bëri na ndax ñu bëri na kenn kenn réerewul mbir ni ñii ñëw ci gàmm bi bëri nañ ñi fi ñëw kat nationalité bu nekk dafiy ñëw nigérian dafiy ñëw euh, malien dafiy ñëw béninois dafiy ñëw léegi nii rek am na benn waay yoo xam ne benn la jógee daf ma mu ngi soog a yegg si te kat mënul dem hôpital régional ndax amul moyen yu mu fa demee mm. te moom dafa kat bëgg ñu xool ko te bëgg na bu ñu ko xoolee ñu may ko ay garab te xam nga ne loolu bu doon hôpital kese moo fi nekk mm. mënul nekk mm. donc ñun dañ ciy jaamu yàlla te bu boobaa it faj nañ ci ay soxla yu bari te di ci waxaat alhamdulilahi beneen yoonu aussi. d'accord alors donc je pense que comme li ma ko wax su ma delluwaatee ci may wax dinaa leneen leen cas yi fi ëpp ay cas paludisme la mhm. te paludisme du ne sax ñoo fi ëpp mais yi fi gën a graaw te paludisme yaakaar naa pour moytu ko. chaque jour dinañu gis publicité ci télé bi pour ñu wax ñu nu ñu koy moytoo mooy déjà sànke sànke mooy li njëkk ci moytu paludisme bu dee jigéen bu ëmb la am na lu ñuy wax am na garab yu mu war a jël ren benn traitement préventif mais bu dee ëmbul bu dee góor la par exemple li ci njëkk mooy nga nelaw ci ay sànke et puis en même temps aussi fexe xam nga Kaolack tamit euh, ni ñuy wax ndox yu taay dafay bëri yenn garab yi aussi dañ fay bëri donc loolu exactement loolu tamit daf may permettre ma mën a wax beneen pàcc ci feebar yu ñu jot a gis am na feebaru biir yu ñu fi jot a gis te feebaru biir bi lu koy indi mooy lu ñu wax c'est la maladie des mains sales mooy ñi nga xam ne kat seeni loxo setul parce que ñu ne loxo bu setul ah ndoxoy setal lox te tamit tey jii bu dee ndox amul loolu tamit dañuy lancer beneen appel autorité yi parce que ndox dafa bokk ci wér-gu-yaramu doomu aadama ndax boo amul ndox doo raxasu te boo raxasuwul it xëy na jàngoro yi ngay jël ci boo nuyoo nit ki te gis nga gàmmu gi ni mu demee nit ñi dañuy bëri dañuy jaxasante seen biir donc bu dee ndox amul rek day exposé doomu aadama yi da leen exposé ci yenn yi nga xam ne mooy feebaru biir te feebaru biir bi tamit bokk na ci feebar yi ñu fi jot a gis tey bokk na tamit ci feebar yi ñu jot a jox gars yi ay garab di ci faj donc loolu tamit li ñuy wax beneen appel bu ñuy lancé autorités yi pour tamit ñu def le tout pour que en période de gàmmu ndox mën a am te ndox bu amee it na doon ndox bu doy parce que mun nañ na ndox am na fekk na it ndox boobu ca xoytul ay ay toq toxaan la te toq toxaan yooyu tamit day gën a favoriser yenn feebar yi li ñuy wax leen les jaare yi te loolu aussi c'est un problème e encore une fois euh, bu ñu jëlee feebaru biir yi ñu jël feebaru sëqët bi mooy mooy mooy mooy grippe bi ñu doon wax léegi ñu jël paludisme bi jàpp nañ ne yooyu feebarkat c'est des maladies infectieuses et c'est des maladies li koy moytuloo c'est une prévention te prévention bi kat dafa am foo war a teg tànk dafa am foo war a doxee pour def ko. la